Euh, salaamaaleykum à tout le ah. ñu ngi ziar ñëpp di leen wax pareel pare leen pare na euh, damay wax ne ñi nga xam ne jotuñ seen ay carte di ko wër bu leen découragé wër leen ko fu ngeen mën ndax carte yi suñu alal lañ ko defaree muy cinquante deux milliards donc nañ ko jëli di ci wër di daw subaak ngoon ndax jar na ko voté acte citoyen la ku jëliwut sa carte voté wuloo buñ la tànnalee ñu tànnee à ta place amoo sa mot à dire da nga war a noppi donc carte yi nañ ko jëli dafa am benn expression wolof bu wax mu ne addu kalpe li ko kalpe jaral bu ko jaralee borom kalpe kalpe bi du dem donc carte yi lu mu leen jaral rek nañu ko jaral bañ jot bu ñu ko gën a bëgg ñu jëli ko denc ko fu yàq yeggul daas fanaanal ko maanaam di bu rafet wasalaam